soxal na doxalinu moomeelu askanu Sénégal mu di seen alal nañu ko càmbar xool ndax nguur gi fi weesu nañu ko doon doxalee jaar na ci aw yoonam déet naka noo tam passe ji accord yi nga xam euh, ci ndiisoom jëwriñ doon amal ni ki démb di dajam jëwriñ di conseil des ministres bokk na ci la ñu xam ne moo di lépp nañu ko càmbar xool ca dëgg-dëgg fan la dugg lépp loo xam si ni mi ngi ci loxoy état ñu bàyyi ko ci waaye lépp loo xam si ne ci état la bokk tey itam ñu jox ko keneen ñu daal di koy nangu mu dellusiwaat ci état noonu lañ koo xamle ba tey lu jëm ci pass di accord yi nga xam ne jamono ji moo amoon ci minier nag itam pétrolier ba ci halieutique naka lañ mën a def nag ba waxtaane waat ko ki nga xam si ne moo di maître Amadou Ali Kane ay kàddoom mi ci biir yéenekaay bi la moo xamle moo di ñetti yoon kot rek dong mooy yem ngir ñu benn ci wàll woowu lànk na daan duñ ko waxtaane waat yéen bi lam xamal moo di mu nekk kàddu yi maître Amadou Ali Kane moo di la ñuy a def nag moo di dem tey yoon cot rek daal defay karaame waaye nag ma am na ci loo xam ne buñ ci àggee mën naa jural euh, nguuru Sénégal yu bare bari ci ay jafe-jafe ci wàllum koppar ak yeneen yu ko nuru noonu la ko xam ne ci biir yéen kat ba tey yéen kat bi di këk ñun duñoo xamal ne euh, daamaar di véhicule yi nga xam ne moom la ñu jagleel ñi nga xam si ne ñooy jëwriñ di ministre yi yéen euh, euh, waa APR taxaw na temm ngir jàppal ko tànk ñoom la ñu xamle moo di mbir mi nag dañu koy buntaxaatal ca dëgg-dëgg tey itam lii ñu ko teg jaaru ci aw yoon waa APR ñii nañ ko xamle jëmale ci ki nga xam ni moo di Bah Diakhaté jamono ji ci lu jëm ci xool naka lañ doon doxalee moomeelu askan wi lépp ñu càmbar ko tegu ci aw yoon jamono ji ki nga xam si moo di Ousmane Sonko yóbbu na Macky Sall ngir euh, càmbar ay mbiram ca dëgg-dëgg nan doon doxalee euh, moomeelu askan wi doole ko ci weeru janvier 2019 ba 31 mars 2024 soxla na doxalinu moomeelu askan wi lépp ko xool ndax ndax dëgg euh, moo di Bah Diakhaté ba léegi mi ngi ci biir yéenekaay bi naka itam euh, euh, ko ci ba tey yéenekaay bi ma nga ca kaso ba ma nga ca loxoy tekk jëri la ko waral moo ci mbirum njuut bi moo ñu ko xamal ba tey mi ngi ci biir yéenekaay dinañ ko gën a yaatal enquête quotidien dikk ak ñun di ñoo xam ne jamono ji patrimoine foncier et bâti maanaam jamono ji lépp loo xam se bokk na ci moomeelu euh, état bu Sénégal Elimane Dior di Ousmane Sonko la mu bëgg moo dinañu ko càmbar ngir xam fan la nekk ak yan yoxoo la nekk maanaam ci loxo yan lañ ko teg lépp ñu daal di koy càmbar joxe delloowaat ko état bu Sénégal noonu lañ ko xam ne ci biir yéenekaay bi lu ci demee ne ay taax ay bâtiment ak yeneen yu ko nur yoo xam ne euh, ci état bu état bu Sénégal moo ko moom ba nopp ñu jël koy jagleel ko ñeneen loo xam ne war nañ koo càmbar ci dëgg-dëgg ngir mën a xam ana fan la féete ba tey beneen yéeglekaay ak la moo xam ne ni ki tey ji mu di laas ci la dellu siwaat moom itam dañoo xam ne Ousmane Sonko jamono ji yàkkamti na ko ba àgg ci lool lépp loo xam si ni état bu Sénégal moo ko moom nañu ko delloo na ko itam fépp fu mu nekk nañ ko gëstu ba xam ci dëgg-dëgg ñan lañ ko dox lépp mu ngi ci biir ay yéenekaay bi ba tey waa APR jamono ji taxaw nañ temm ngir euh, booloo waat taxaw nañ temm itam ngir dajal waat ci seen biir ngir gën a dëgëral seen toogaayu politique noonu lañ ko xam le Abdoulaye Diouf Sarr moom bokk ci nga xam ne jiite nañ jamono ji ci APR ay kàddoom wala bokk euh, taxawaay moo nekk ci biir yéenekaay bi di Vox Populi ba tey point ñoo xam ne la woon ci diggante APR moo di Pastef dafa mel ne jeexagul mu di coow la jamono ji coow li judduwaat na ci diggante ñaari parti ki ko dekkilaat nag moo di Bah Diakhaté coow li nga xam ne dal na ci kaw mu di bi ko tegee loxo waa APR la gis moo di Pastef nag jamono ji li muy def teguwul fenn daanam dañuy buntu xatal di jaay doole ki nga xam si ni moo di ko xam ne ba tey bi nga xam ne teg nañ ko loxo jamono ji tax na waa Pastef ak APR

di ñu saytu lépp loo xam si ni bokk na ci moomeelu état bu Sénégal ñu xam ca dëgg-dëgg fan la nekk lépp ñu delloowaat ko ci état bu Sénégal ndax yu bare bari la jàpp moo di ay ministre ba nay dem nag dañu ko yóbbaale wala ñu def ko ci seen moomeel tey itam moomuñu ko ca dëgg-dëgg moom Ilimani Jëlandi Ousmane Sonko dëgg bëgg ni nañu ko càmbar lépp ñu teg ko ci aw yoon Sud Quotidien moom itam dikk ñu dañu xamal ni la woon ñu yàgg koo xeex mu jóge ci réewum Sénégal waaye jamono ji ba tey ji ma ngay wëy di fi nekk saa boo rombee ci mbedd da ngay gis tuwaale mbuusi la dëgg dëgg lajj la maanaam ba yi nga xam ne teg nañ ko loxo ci ay sinébar fan ko tegee loxo lépp mi ngi ci biir yéne kaay ci mel ni kër ayib na ko itam ngor virage ba ci fi nga xam si ni moo di eh, ngiriñ ak ngiriñ séeréer lépp mi ngi ci biir yéne yéenekaay bi maanaam lañu fa jàpp ci ay sinébar fan ko jàppee ak ñan lañ ci teg loxo lépp mi ngi ci biir yéenekaay bi mu di ko faram fàcce ba tey yéenekaay bi des ci nga xam si ne moo di Thierno Diagne mooy maire bu Sindia Yon teg na ko loxo la ko waral moo di mbirum juuj njaaj la ñu ko jàppee loxo loo xam ne da ko doon def ci anam bu jaar yoon na ko itam ñeenti dossier waanam ñeenti way dara yoo xam ne jamono ji euh, wékku na ci kawam yépp ñu war koo leeral moom euh, ki nga xam si ni moo di euh, Thierno Diagne maire bu Sindia ba tey bari na yëglekaay ak la moo xam le ni ki te ji mëri turbine yéen akaay bi këk ñoom dañoo xamal ni nguur wala bokk yoon wa fi woon maanaam justice ba fi nekkoon ci nguur Macky Sall ba tey ji moo fi nekk toppekat yi fi nekkoon di procureur yi ba tey jii ñoo fi nekk ba tey jii ñooy wujje di fi nekk laaj la bopp yéenekaay bi di turbine moo ko samp ba tey yéenekaay bi di këkk ñun duñu xamal lu jëm ci wàllum euh, lap gi nga xam si ni ñu bare bari ci ay xale ñi ngi koy lap duggaat ci ndox mi nga xam ne ci géej yeneen yu ko nuru jamono ji nag mi ngi wéy di bëgg ëppi loxo ndax ñeenti doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci fan yi rek ñu daal di génn foofu la ca Mermoz xam ne jot na sëkk nag gouvernement bi taxaw ci def ci ay jéego ngir ñu xool ca dëgg-dëgg naka lañ mën a def ba loolee daal dakk xale yi ak mag ñi sax ni ñuy labee ci géej yi nga xam ne moo nekk fii ci euh, diwaanu Ndakaaru sursoir dikk ak ñun dañu xam ne ci lu jëm ci jafe-jafe yi ma amoon foofu lee ca naaw di eh, aéroport bu New York lépp yéen a kaay ma ngi di ko gën a andi ay leeral naka noonu itam yéen a ko ñun a amee jamono ji ba tey foofu lee ca diwaanu Derklé a kaay bi la ñu xamal moo di Pape xamal moo di lañ koy <laughs> xam moo di Yaay Fatou Diagne Yaay Fatou Diagne koppar bu takku xam ne wax dëgg yàlla daan na ko génnee ba mu nekk ci nguur Macky Sall atum moo di moom koppar boobu nag da ko daan génnee daanaka ci doo xam ne du ko jaare ci benn firnde maanaam lépp loo xam si ni génn na ko ci ab xaalis mu toll ci koppar bu takk takk daanaa 666 la waaye nag koppar boobee amut lenn loo xam ne mën na koo firndeel ni fii ak fee la dugg mu nekk loo xam ne yéenekaay bi di yor yor bi eh, dikk na ci mu soxol yaay Fatou Diagne ba tey beneen yëglekaay ak la mu xamle nikite ji muri direct news yéenekaay bi itam la mu taxaw moo di ci mbirum ki nga xam si ni moo di Macky Sall yéenekaay bi la xam moo di ñu bari ci askanu Sénégal jamono ji liñ jug te di ko sàkk mu di benn pétition mu di Macky Sall foo a nekk ci àdduna bi nañu ko jëlee indiwaat ko fii ci réewum Sénégal la ko waral moo di nem doon doxalee réew mi yu baree bari ci ay gàkk-gàkk mi ngi fi te war na koo reel ba tax ñu jàpp ni Macky dafa war a ñëw ci réewum Sénégal yéen a kaam ñu xamal moo di pétition boobu léegi gannaaw ba ñu ko lancé ñu baree bari ci askanu Sénégal jug nan daal di ànd lu baree bari ci ay nit ñu takko takko daanaka benn fan kott lu toll ci ñetti ak juróomi ànd nañ ci Macky Sall ñu indiwaat ko fii ci réewum Sénégal ngir mu leeral mbooleem na nga xam doon na ko doxalee ci moomeelu askanu Sénégal yu bare bëri la ñu wax moo di jaaru ci aw yoon grand panel moo ci topp ak moo ci topp ak kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko jibal na ko BRT bi la ñu xam le moo di ay fan yu néew la defagoon ba muy daweek léegi waaye nag jur na jafe-jafe ci ñenn ñi liñ ñaan njàmbatuwaay mooy ayuwaay njàmbatuwaay maanaam ayuwaay jàmmiwaay la ko waral moo di ñi nga xam si ñooy taximaan yi ñooy dawal taxi naka itam ñi nga xam wa ak Dakar dem dikk ñoom la ñoo xam ne moo di gisatuñ seen bopp ci seenub liggéey la ko waral moo di clients yi demono ji wan nañ leen ginnaaw ñenu moo di BRT bi mu nekk jafe-jafe yoo xam ne ñu koy leeral ci biir yéenekaay bi ngir ca dëgg-dëgg ñu dakkal yooyee ñuy def maanaam bàyyi mbir yooyu ñuy amal ci sàcc yi jëm ci wàllum euh, xar yeeg yeneen yu ko nur ki nga xam si ni moo di euh, Dakar Presse ki nga koy toppee jamono ji jëm ci mbirum wàllum njuuj njaaj jamono ji mi ngi ci loxoy yoon moom nag jamono ji daal dañ koy defeere ca parquet bu Mbour noonu ñu la ko yéenekaay bi xamle moom itam moo di moo di ki ñu dénk lu jëm ci njàng meek njàngale mi fii ci réewum Sénégal njàng mu diggu dóom mi ba ci mu suufe mi ki nga xam si ni moo di euh, Girassi moom ay kàddoo mi ngi ci biir yéenekaay bi la mu xamle moo di am na jàngalekat boo xam dañu koo faat jàngalekat bi di mu faat nag moom mi ngi tudd ci Alain Kali moom nag ginnaaw ba ko faatee jëru ji dénk njàng meek njàngale mi la moo xam ne moo di des na ci def kem tulaay kattan ba xam ci dëgg-dëgg ana kan moo ko faat ba lépp lu ci mat a leeral ñu daal koy leeral tàggat yaram moo ci topp ndes tut dañ ciy dellusiwaat ak Al Amine Senghor Baye Birahim Touré li ëpp ci yéenekaay yi tey jii ci lenn la ñu xëy moo di Ilimani jëriñu Ousmane Sonko li mu bëgg taxaw ci